dañ ci dalal Omar Bun Xatab Gueye mbokk yi génne leen pod yi marmit ba ci cin yi oto yi di klaxonné réew mi yëpp di rëng-rëng tey ji vingt jàpp vingt une heures Walf yi tey ji la génnaat tey ji dañuy concert dañuy tëgg ginnaaw meeting investiture gi préfet yi ak gouverneur ne du am ndaxte day yee fitna fii ci réew du Sénégal Ousmane Sonko ne du leen topp ca loolu le li ñu woote tey ji nañu ko bàyyi te tëgg pod yi loolu di feem wu yees yu Ousmane bi di vingt quatre vingt heures trente dem jëndi bracelet yu Pastef yi de la liberté Ousmane Sonko ci vingt di tàllal loxo waa Benno Bokk Yaakaar ak waa nee na ñi ci baax te gëm projet bi ibbil na leen buntoom ngir ñu mën a liggéey mim réew di Sénégal loolu nag ginnaaw dal gi mu woote waaye dal googalee day dalandi rek yéenekaay bi di l'info ne Ousmane Sonko woote na ay manifestation fii ak fan ci réew mi yëpp te bu boobaa gatsa gatsa lay doon maanaam mu neex mu naqadi dinañ ko mu ne singili gi ko président Macky Sall singili ak nguuram tëj ràpp ca këram ak li nga ko tee génn loolu doonul mu lu gën moo tax mi laaj lii di militant wu Pastef yi ak mbim réew di Sénégal askan wi na leen bu nu nangootu mukk Macky di leen njëkk a jug ñoom kay nanu jug njëkkaa song ci yéene kaay bi di l'info ci yéene kaay bi di yor yor mu ne résistance rek ak lu mun a jur lu mun jar feeki fan autorisation wala déet lañ bëgg dinañ ko def ci yéene kaay bi di yor yor Ousmane Sonko ko jeexal rek ndaxte yéenay président Macky Sall léegi ñëpp xam nañ ko mooy tas Pastef ba mu tas tasar boobu les parti ba du amati mun a rendez-vous 2024 Ousmane Sonko ne bis bu ñu ko ratee juróom fukki at yi ci kanam Sénégal dina tardé dellu ginnaaw loolu nag moo tax mu ne février atum 2024 Sénégal war na tegu ci yeneen loxo loxo yooyu la nag na ngay dànkaaf ñi di takk der ak àttekat ak ñenn ñi teg fitna askan wi di leen duma Ousmane Sonko nee na bu boobaa dinañ teg ab tribunal spécial boo xam ne dañ leen caatee ci mbóosóor yi ñu def fii ci réew Sénégal mu ne kon ñuy duma ak di tëj nanu def nànk ndaxte mbir mi mën na soppeeku fii ak weer Ousmane Sonko nag wane xar kanam yi bari ci yéenekaay bi di l'Observateur mu ne ngànnaay li teg na ko bis ni waaye dina ko yëkkatiwaat nee na nag li jëm ci concert de yi tey ji si samedi ji di ay klaxon na ko noonu tëggi pot ak i cin leader bu Pastef ci yéenekaay bi di l'Observateur ma ngay annoncé ay manifestation yoo xam ne fii fan lay doon ci département yi nekkee ci mim réew di Sénégal Ousmane Sonko ne tëj goon ko tëj ca këram la mu ko jural ak la mu ko yàqal bari na ndaxte lu mooy moom ak njabootam doom bi waroon a def bak singli ak fàttgin ko fatt tax na amul bak te loolu lépp teg na ko ci loxoy kii di président Macky Sall moom Macky Sall moom la yéene kaay bi di la quotidien li jëm ci candidat bu Benno moom Macky sàll ña ngi ko cay xaar ginnaaw ab tukki goo xam ne da koy amal ci Afrique tukki googule bu Macky ñibbisee la ñuy wax kan lay tànn ngir mu wutu ko ci ko Benno Bokk Yaakaar ak APR ngir mu mën a doon seenuk mbër ci atum 2024 Khalifa Sall ak Karim Wade ñaari fan moo tee ñu xam ci ñoom fan la ñuy féete ndaxte luwa bi des na ko mën a soppi ci code électoral bi yéen kaay bi di Sud Quotidien ne Khalifa ak Karim ña ngay xaar ngir mën a jotaat seen àq ak seen yelleef ngir mën a doon candidat code électoral bi révision constitutionnelle ak code pénal bi ñetti projet de loi ci assemblée nationale altine lay doon l'observateur ne ci lan la ñu nar a sukkandiku ci projet de loi yooyu le mooy président saa su ne mën a tas assemblée nationale lu mooy lool le Khalifa ak Karim Wade mën a jotaat seen ak ak seen i yelleef CREI yi ñu tas ko créer ab parquet financier fii ci réew di Sénégal élection yooyu la ñu jëm nag yéeni kaay bi di laas ne kente gagnant bi ñii la Karim Wade Sonko Aminata Touré Khalifa Ababacar Sall ak Idrissa Seck juróom yi ki nar a jiite réew mi mën na cee bañ a génn ndaxte ñoom ñëpp mat nañ ko ngir mën a jiite mim réew di Sénégal Sénégal nag du topp Juan Branco tey jii dagg boppam la ñu bëgg loolu la yennkaay bi di enquête wax yéeni bi di l'observateur ne procureur moom moo topp ki di Ousmane ki di Juan Branco ci yoon nee na mandat d'arrêt la ko dóor avocat Sonko yi ànd ak Juan Branco ci yéeni kaay bi di 24 heures jàpp na ni loolu procureur yi def yëfi caaxaan kase la di diversion ndaxte bis bu songee Juan Branco ci lay xam ne tubaab du moroomu naar ku weddi laajal Sadio Mané yéen kaay bi dee sat ne ginnaaw ba ko waa Bayern ni yeewee moom Sadio maane ngir mu mën a dem fubali feneen Sadio nee na demul yéen kaay de dee sat ne diggante Sadio maane ak Bayern ci xëccoo la ñu jëm ci été bi type de l'été ci atum 2023 di waykat yi gën a xereñ ci mim réew di Sénégal yéen kaay bi di Walf Quotidien ne jamono yi ñiy toj seen bi bokk na ci jaamaan Mia Guissé Titi Viviane ak Wally Seck ñi ngi yëngal jamono temps yi daal ñoo xew waaye bis dina ñëw ñu mës xew yi ni groupe Lemzo jamono bi yéenekaay bi di l'observateur dalal tey jii di waxtaanee groupe boobu lee di Lemzo jamono ci année 90 yi Lemzo jamono na mu juddoo ak contrat bi tas Lemzo jamono ak na lay def ba dekkalaat boobu boobule groupe ñoom Salam Diallo Fallou Dieng sàmb lamin fay Faye ba ak ñoom Aline Mbaye ci jamonoy rëg-rëg bu jan yaay salaam Gor la rëg bu jan neexul ba neexul waaye démb neexoon na